Sénégal daal dina tànn ci ngoon ko 24 mars bu atum 2024 Bassirou Diomaye Faye ngir mu jiite réew mi moom mi le daal di am daanaka lu jege 54 pour cent ci ñi nga xam ni wote nañ mu am mandat juróomi at boo xam ni benn yoon képp lañ ko mën a yeesal loole moo ko booleek askanu Sénégal mu nar koo doxal ànd kooka njiital gouvernement am ak ñi ko teewal ci gox yeeg goxaat yi njiitu réew mi nekkoon candidat ci élection bi weesu daal na jëbaloon askan wi ab programme boo xam ni nangu nañ ko loole mu nar koo doxal mu nar a kon def lu wuteeg li fi daan am moo nar a jiital jëfinu njiit réew mi Bassirou Diomaye fay partem Pastef ak ñi nga xam ni àndoon nañu ak ñoom ci coalition benn weer ginnaaw bañ ko installé mu doon njiitu réew mi mu daal di tëral ab feuille route bu leer commencé jëf li ko dalee discours à la nation bu 3 avril bi weesu bataaxalu jub jubal jubbanti bi nga xam ni daal na ko jébal fonctionnaire yi nekk fii ci Sénégal ak dogal yi mu jël ñëwal ay rapport corps de la jëm ci suuf si jëm ci accord de pêche yi ci contrat yu ñeel ressources naturelles di gaz pétrole ak ñoom seen ak yeneen coppite yi nga xam ni andi na ko wane ne yoon daanaka ci liñ nar a doxal ñu bëgg Sénégal moom boppam ci wàllum politique waaye itam ci wàllum koom-koom ci gàttal faaw Sénégal moomaat boppam ci bépp fànn loole mooy li ñu xaar ci ñoom mu di dog li nga xam ni daan nañ ko def fii ci Sénégal ba ñu amee indépendance ci atum 1960 ak nëgën yi moom sa bopp ci wàllum politique ak koom-koom nag mooy jiital li nga xam ni moom mooy càkkute fi askan wi di lëkkaloo ak réewu Afrique di def ay lëkkaloo yoo xam ni ña koy def ñëpp daan ci jariñu mu di loo xam ni du yomb benn yoon ndax kontex bi nga xam ni am na ci àdduna bi jamono jile waaye suñu àndeek ak jub danañ def li ñu namm ci Sénégal